tamit yéen li ngeen di woy mbëggeel bëriwul euh, comme ni ma koy laajee souvent xanaa tamit doo leen doo bëggante doo leen novante wala <laughs> euh. à place du cœur ay xeer a fa ne. <laughs> non non fii la kaay mal yëpp ay joli cœur lañ. joli cœur nga ne ma. geng sa yëpp ay joli cœur lañ geng sa rappeurs yi ñoo la daa xam ah bëgg moom ça ak ak ak ak ci li nekk quoi tey rappeurs yi dañuy woy mbëggeel tey yaakaar naa dernièrement ni Sénégal. it yi fi mujjee génn ci ay son wu love yëpp ay rappeurs ko def même su ma cité wul seen tur xam nga leen son wu yi fi mujjee génn yëpp ay rappeurs ñoo ko def mbalax bi dèjà amatul sax daanaka relève buy génne ay son mbëggeel kon mbëggeel bi instant yi sénégalais bu ñu ci bëggee jafandu ci dañuy dinañ dem déglu benn is sax xam nga wala dem déglu benn axlu birik affaire yooyu noonu yi ah, ba si dib dund gi dañuy def ay son mbëggeel yooyu mais man mbëggeel en fait bu dee genre musique axlu birik est ce que loolu mën nañ ko woowee rap ñoom lu ñuy def waaw xam nga xam nga xam xam nga xam nga rab yi moom mooy li ma la wax sànq nii doo bëgg ah. di wàcce kenn si doo wàcce kenn mais man bu ma déggee ngay wax rab ba pare boole ci axlu brique mais axlu brique est-ce que ñoom eh, da nga da nga ma laaj da mbëggeel mais affaire ay rappeur lañ mënoo leen génne si rappeur yi axlu si rappeur mais ñoom ñoom est-ce que lan mooy rab d'abord non xam nga xam nga buñ duggee si loolu waaw en tant que ma xam nga jigéen laa ah. te man li may jàppee rab mooy rab bu dëgër bi waaw rab boo xamante ne dañuy dénoncer. te boo seetloo waa Akhlou Brick ñoom lu ñuy def euh, def euh, nuroog mbalax mais pas du rap. waaw xam nga xam nga xam nga xam tey. Mm. bu njëkk hip hop bi bu dee fii au niveau du Sénégal quoi dañ doon tegu ci ay boom bap ay classique comme li ngay wax rab bu woo boobu noonu moom la àll doon wax sànq man la. et pourtant jamono ji soo génnee li ñu njëkk a posé comme question mooy ban façon rap ngay def rab bu woo wala rab bu nooy bi. léegi man na ma dem ba comme genre bëggatuma focus si entre rab bu wow laay def wala rab bu nooy li may def mooy que ni musique bu accessible si ñëpp bu ñëpp mën a déglu mais si rab laa koy jaarale quoi ñee lu ñuy def su fekkee ñoom mënuñu ko défendre man mënu ma leen ko défendre loolu quoi ci ne rap la wala du rab mais selon toi ñoom lu ñuy def rap la wala du rap waa Akhlou Brick. <laughs> daanaka en fait li ñuy li ñuy def man dama naan nice quoi parce que. xam nga nice kon du rap. mais mais bu nekkoon rap da ngay naan rap la. non non xam nga ma ne du ma du ma ne du rap du ma ne mën nañ la wax lan la quoi mais xaw ma lan la. mooy du rap loolu nga bëgg a wax. <laughs> mais ñun li ñuy def mën nañ la wax lan la. te uh-huh. aussi mën nañ ko défendre aussi xam nga la. Mm-hmm. comme li dal rappeurs yi en fait da ngay rap ba mu yàgg débuté da ngay rap. di tegu si ay boom bap di tegu si ay classique di tegu si ay trap ay drill xëy su ne damay musique. te man jàpp naa ne même bool boo ko tëggee nii sax nit kii di tegu foofu yaa ngi def musique mais peut que soo jëlee bitum euh, boo jëlee instrument dem ñu defaral la benn marimba defal la benn sabar defal la benn nangam da ngay défendre ne man li ma def nii dama mélanger musique bi ak musique bi ak musique bi mu jox ma lii ma keree ko man en tant que artiste mais classique ba àdduna tukki classique lay doon mën na gën a moderne nag comme tey classique bi gaa daan tegu démb mu nekk ay kees kase bum bum beeg tey gars yi ñu ngi yokk ay mélodies yu nice ñu ngi yokk ay ay ay affaires yu nice yoo xamante ne bi dañ ko gën a moderniser que par rapport a classique bi nga doon dégg dem mais ça reste même tempo même jàpp skills yi su gars yi teg flow yi rhyme yi rythme yi loolu loolu day changé quoi mais day mel ni nga ne nga ne tali tali bii nii ba lépp lu saa bu ñu ko modifié tali rek lañ koy woowee ba abadan tey bu ñu bëggoon baare tali bi yëpp bëgg ko woowee beneen tur ba ngay ñëw ñu xam ne da nga ko beneen tour mais tour boobu noonu existé wul tu vois rap aussi rap lay mosu doon hip hop hip hop lay mosu doon mais nit ki bu créé beneen style de musique moom mooy défendre ne man musique bii kat man hip hopeur mais dama créé musique temps musique temps défendre ko quoi mais malheureusement gars yi dañuy mbalax ñëw ne la rap laay def musique laay def yow nag man du ma nekk foofu di défendre rappeurs yi wala ma leen di lijjanti quoi li ñuy def ñun l'essentiel bi ñuy def mooy bu baax bi quoi bu accessible bi bu gën bi quoi boobu la ñuy def